wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana Sëriñ Tuubaa qaadala wallaahu maxtaaralahoo nee na képp ku ñu jox aw ñam ci yéen doonte ndey ji la jur la na jàng li laa fi quraysin door koo jëfandikoo siiw na ndax fi mu ne ñam wiy lor mën na cee nekk te waajuram wi la ko jox du ko xam mën naa amit leneen lu tax sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo di wax loolu wallaahu alam sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo mas naa wax ca sànnoo war ngeen a sant munkiir ak nakiir xam nañu leen wér na su ko defee mbooleem li ragal ñun murit saadix yi mucc nañu ci ci barkeb sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu kon li ci des mooy sant bu wér fattaqullaaha laalakum taskuruun ndax sunu borom subhaanahu wa taala ni jaam bi soppeekoo ni lay soppeekoo lu mu la may day sax li fekk defoo lu waral mu nangu ko wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo nee na bu ma dellu woon doon seexal duma seexal ku mënul dara ci alxuraan wér na wallaahu aalam sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal